ci bi balaa muy guddi parce que sama mbokk journaliste yi dañu xaw a yàkkamti ñu ngi nuyu ñi ngi xam ni ñi dégloo ñi dégloo ngeen baal ñi dégloo nag ñu door ñi libéré journaliste yi affaire bi ñu ñu nekk suñu biir ñu ngi tey ànd ak suñu ay militant yoo xam ne ñooy militant defar sa gox ñu ngi teew tey ànd ak ay responsable yoo xam ni ay mandataire lañu wala ñu nekk ay tête de liste ñu nekk futur maire dans leur commune dans la coalition defar sa gox te dañu teew pour xamal leen pour leeral leen leen situation bi nga xam ni suñu coalition bi ñu koy dund depuis bañ ko le premier octobre depuis ba nga xamee ni pouvoir bi ñoom yëg nañ ni que ñun teew nañu en moins deux mois dans plusieurs dans presque plus de quatre cent quatre-vingt-dix communes loolu daf leen jaaxal daf leen tiital ba mujj gi ñoom ñuy woo préfet yi naan leen bu leen jël lutte defar sa gox te préfet yi naan ah ñun de dañ ñoo wax dañ ñoo jox instruction loolu lu ñaaw la ci sama yoon ñoom ba ñu yëgee loolu dañoo jël surtout le président Macky ak ay nitam. di woo suñu ay mandataire di leen jox xaalis di leen dikk xaalis pour ñu bàyyi li may wax preuve à l'appui lu ma wër la woo nañ ñu bëri lu ma trois cent personnes woo nañ leen preuve à l'appui wax na ñii jox nañ leen dix millions ñii jox nañ leen sept million ñii dañ leen jox poste ñii ñu dig am na ñoo xam ni sax ba président di tukki France keroog dafa ànd ak ñoom comme que nag président la yàlla may na ko doole comme lu mu waxee keroog il a les moyens il a le xaw na si jël lu bëri waaye am na ñoo xam ne ay góor lañu am na ñoo xam ne ñu ngi fiy toog wala nekkuñu fi woon nañ leen digal alal ju bëri ñu ni ñoom du ñu wax Sénégal nag dañuy foog ni Djibril Ngom bëriwuñ fi mais bëri nañ fi. ñoom am nañu chance ba day nekk ay jibilu ngom suñu suñu coalition waaye ñëpp duñu ay jibilu ngom am na ñoo xam ne seen dignité seen dignité kenn mënu ko jënd te la fi xew lu ñaaw la si dëkk bu mel ne Sénégal lu ñaan dëkk boo xam ne dafa tuuti waaye ay kilifa ñoo fi nekk muy dëkku Mamadou Dia di dëkku Lamine Gueye di dëkku Blaise Diagne di dëkku Léopold Sédar Senghor di dëkku Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak même dëkku Macky Sall di dëkk boo xam ne dëkku kilifa Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul Sidi Hadji Malick Limamou Laye Boukounta El Hadj Ibrahima Niass dëkk Yacine Thiandoum dëkk boobu lu rafet moo fi war dox mais lu ñaaw waru fi am ba ñu yàlla mayee ndam ci devant la mu jox ñu ndam jox ñu dëgg ci préfet yi nga xam ni dañu annulé woon ay liste ndax naan couleur yi dañoo niroo cour d'appel may ñu si ndam ñu foog ne affaire bi geex na tooguñu rek ministre de l'intérieur ñëwaat am doole ni moo dafay jund suñu ay couleur ba pare nag nii dañuy jox ay couleur ñun nag nanguñu ay couleur te bu soobee yàlla du ñu dem élection ay ay couleur am xanaa comme que ñun dañoo am yar ak teggin dañoo xam luy dëgg dañoo xam luy yoon xanaa décision de justice impose ñu ko obligé ñu ko dans ce cas dem couleur bu ñu demee ak feuille blanche sax dañuy gagné bu soobee boo gisee nanguwuñu ñoom ñu imposé ñu couleur parce que dafa nekkul dëgg nekkul yoon ndax ñun suñu couleur jant bi la le soleil suñu couleur rouge bordeaux la suñu symbole. mooy alburaax mooy berkelle mooy doomu fas ak mbaam moom moo ñu yóbbu bi des bu gaaw ñoom seen couleur ak beige ak benn bopp fas boo xam ne kenn xamul fu muy taxaw loo gis mu dëgër dafa am taxaw loo gis mu dëgër dafa am tànk bâtiment pour mu dëgër day am fondement ñun sunu mulet mooy sunu alburaax bu am fas bu yóbboon rasulullah sallallahu alayhi wasallam rañaan ak vitesse bu gaaw loolu la ñu ndax dañu bëgg dox lu leer dañoo jël jant bi ndax dañuy dox lu leer jëm fu leer dañoo jël alburax ndax dañu bëgg lu gaaw ndax affaire bi dafa yéex Sénégal dafa nekk en retard sur beaucoup de choses boo bëggee tabax benn tabax bi da def lu gaaw kon affaire bi wute na comme ñoom bu ñëwee tey couleur yi be wute am différence. ñoom ñu ni dañ koy dindi ba mu set ñun duñ si d'accord xanaa rek yoon dox leen dëkk ñu doog a ànd si décision yoon mais pas ñoom seen bëgg-bëgg te ñoom bu ñu dënul suñu couleur bu ñu ko bañee imprimé te fekk yoon waxul dara ñun dinañ jël ñun suñu pexe bopp suñu moyen bopp ñu jël imprimé suñu bulletin de vote teg ko dans dans toutes les communes dans tous les centres de vote yi nga xam ni coalition benn defar ko ko teew na